leen yegg leen suuf. ne sama turandoo maamoon seen maam ne yegg leen suuf. ne leen njaal li fan ngeen ko teg. ni leen waaw njaal li fan ngeen ko teg. ñu nakk nakkal. ñu nakk nakkal. mu leen man nag dama am kilifa. ne Seydi Hadji Malick seen maam leen dama am kilifa. sharia. sharia. moo ma féete ndeyjoor. moo ma féete ndeyjoor. sunna. sunna. moo ma féete càmmoñ. moo ma féete càmmoñ. te ngoro may sàmm. ca ngor nag moo may sàmm. Abdoulaye Ndour faatu na. ne Abdoulaye Ndour kat. yëg daane jigéen la bàyyi ci kër ga te këram googu ma laan dal muy fii jigéen la fa ba te sariya tere na ma te sariya man tere na ma man Maodo jigéen ju ma dencul jigéen ju dencul ñu bokk benn ëtt ñuy bokk ci benn ëtt mu fay noyyi mu fay noyyi ma di fa noyyi muy maam Anta Sall muy maam Anta Sall mu ni bi ci des ne góor gi seen maam ne bi ci des ngoro ko bañ ngoro ko bañ ngor bañ na ngor bañ na di dal fu la ñëpp xamee di dal nag fu la ñëpp xame xame ba jamono ñëw ba jamono ñëw nga dal nga dem dalli fay dalli ki feneen te ñaar yii yëpp te ñaar yii yëpp bu ma duggee Dakar bu ma duggee Dakar mu dal ma mu dal ma kon dem leen jaala jël ma ko ah kon nag dem leen jaala jël ma ko bu ñu see ba jaale ko ba noppi bi ñu see ba jaale ko ba pare ci ndénkaane ci ndénkaane bu njaboot gi daje woon bu njaboot gi daje woon bëgg a jël soxna si bëgg jël soxna si jox ko Seydul Xaaji Maalik jox ko nag Seydul Xaaji Maalik ba ñu yeggee ba ñu yegguñu ci loolu yegguñu ci loolu Maodo ko tudd Maodo ko tudd mu ni ko mag la mu ni ko mag la tem mag ñi génn ci biti xaw a siisu dellu si ci moom dellu si ci ci seen maam Seydil Xaaji Maalik mu ni leen dafa mel ni dafa am lu xew ni mun leen dafa mel ni dafa am lu xew lan la. ñu ne ko lan la. ca xëy ba ba. ca xëy ba ba. mag ñi yegg suuf. mag ñi yegg suuf. ne ko si. ne ko si. ne Abdoulaye Ndour toll ci yow. ne Abdoulaye Ndour toll ci yow. ak ni askanu lébu. ak askanu lébu. ni ñu fonke seen bopp. ni ñu fonke seen bopp. mu faatu mu faatu yóbbuñ le ko ba noppi bi ñu yëgsee ba jaale ko ba pare ci ndénkaane ci ndénkaane bu njaboot gi daje woon bu ndajo gi daje woon bëgg jël soxna si bëgg jël soxna si jox ko Seydul Xaaji Maalik ko nag Seydi Xaaji Maalik ba ñu yeggee ba ñu yeggee yegguñu ci loolu yegguñu ci loolu Maodo ko tudd Maodo ko tudd mu ni comme mag la mu ni comme mag la te mag laa te mag laa deretam jeex na deretam jeex sama deret jeex sama deret jeex na mën naa koo nangu ci ñetti dong loolooy sababu mooy sababu dellu si Alaaji Malick Dakar kon nag kon nag Maodo daan jóge fii Maodo fii monsieur di dem ci zawyaam bii di dem ci zawya bi di dem ci zawyaam bii ñu ñëw fi ñu ñëw fi ba lii defee fi lii fa lillahi alhamdu wa kon nag jërëjëf Sarr boo demoon dellu si